képp koo xam ne waroon naa ko gërëm te tudduma ko ba nga dugg ci boobu ngërëm muy xaasatan nag ah Ousmane jërëjëf maam Ousmane suñu mag lay wax su ma ko waxee jërëjëf wax naa waa kër gi yëpp jërëjëf ndax gàmmu gi ñoom ñoo ko yore waa kër gi sonn nañ ci gàmmu gi xëy na mënuma leen seppi benn benn di leen gërëm mais waa kër gi sonn nañu ci gàmm gi yàlla leen yàlla fay yiw ah ci moom lañuy dem ne ko lii ñoo ko def ci waañ bi ci reeru gàmmu gi kon nga xam ne gàmmu gi yéen a ko yar de man yoruma ko de yàlla xam na ko yéen a ko yar papis mii xam na ci daal ute naa jamono yi ma daan toog téye sama bopp papis ñëw ne ma ndax gàmmu gi dina am wala ah dana am de ndax yonent bi ko moom man moo mu ne waa loo yor foofu ma ne ko daal allahu akbar loo yor foofu mu ne ko dara waaye yàlla day def balaa ngoon jot rek yonent bi yónnee sallallahu alayhi ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara ngir jëmam soo dëggalee mu dëggal ànd ak yow boo caaxaanee mu fa sallallahu alayhi wa te loolu moo daan am abis ñay xam ne ci lu bari am na ci lu bari waaw doo ci dugg nag waaye boo toogee léegi maa ngi ko koy wax tey ma ne ko Papis maa ngi fàttaliku gàmmu boo xam ne mbubb ma ma soloon quinze mille francs laa ko jëndee woon quinze mille francs léegi mbubb mi may sol quinze mille fois dix la quinze mille fois dix te jógewul ci suma poche mu ngi jóge ci poche yu jàmm yàlla yi ak soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nga xamne ne du ñun ñoo neexal gàmmu gi dem na sax ben at mané wa waa mat ma mané wa yalla da nga tul sama xaaliss ci gis na né avant ma daan def légui nit ñoy def ba man soo moytul dootuma defati dara ci gamu gi maa da bëgg tul sama xaaliss allahu akbar kon yalla na yàlla def tawfiq ah biñu fi toge daw ba ren am nañu fi bayiko ko wuy ji seen borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu su ma doon lim ñi jóge ci koñ bi rek kon ngeen génn léegi dem bàyyi ma fi ndax temps ko mate waaye ñoom ñëpp yal na yàlla yërëm leen awa jeen tudd nañ ko léegi moo doon taawu kër gi fii la daan toog ba mu koy man yàlla def na tey ma nga ca biir suuf yàlla ko yàlla yërëm moom ak ñamu fay fekki ñëpp wax nañ ko léegi Ibrahima Silla di doomu suñu rakk suñu bàyyi Maodo Silla moom tam génn àdduna suñu mag Ngoone Njaay di yaay Nguudo ma ne génn àdduna bari na bari na fii ci koñ bi Faatu Aaw génn àdduna bu yàggu suñu yaay Fat Sekk Ndar génn àdduna ma dem wala ma taxaw ah bari na bari na bari na bari na xam nga loolu mooy lan yàlla la mu waxoon ma nga ca ñun ñoo nekkul ci li ñu yàlla santoon kama bada'naakum awwala marratin ta'uduuna yàlla nee na ba ma leen di bind benn benn ngeen di ñëw ci àdduna loolu laa leen di roccee benn benn ba ngeen jeex ci kaw suuf xam nga lan moo ma yéem Gisna naa ñuy rang xaaliss ah. gis naa ñuy rang ceeb gisna naa ñuy rang sax pour dugg kaar gis ñuy rang pour dugg stade gis naa ñuy rang pour lu ne pour bindu liste bu ne gis naa ñu fay bindu ba banque sax da ngay bindu ji ñu jox la sa xaaliss benn liste rek la gisul buuxante moy bu liste bi jëm ah. te pourtant bindu dem bindul dem ah. bindul dem bindul dem. Hmm? bindu dem bindul tem. yàlla bind na dem dëgg la. xam nga lan moo ñu dese. li mbër yi di wax naan bu keroogee na nga dëggal sa bopp. loolu moo ñu dese dëggal suñu bopp. ci ne ñun bindu nañu ci liste bi mën a dem ñu dëggal suñu bopp waajal ne xam ne dañuy dem waaye nekk ci àdduna rek lu la neex nga def lu la neex nga wax ku la neex nga àndal allahu akbar allahu akbar yal na yàlla yërëm ñaan la boo xam ne néew yi rek dañ koy ñaanal te pourtant ñun dañ koy yelloo ñun ñuy dund yaa rahmaana dunya wal axirati wa rahimahuma waaw ah, loolu la gaa ñu di wax ah ah Ousmane <laughs> ah Ousmane day Ousmane Ousmane daf ñu bëgg foo dugguloo foo xam ne saa yu wéetee mu dugal ma fa te saa yu duggee balaa moo pare ma aalu sànni micro yi c'est vrai du ma ko nangu nag Ousmane ah, waaw. <laughs> Ah. xam nga li nga wax kenn mënu ci dara si El Hadji Malick waxoon na ko kenn mu niya mu da da'i itnaaba qul kullul baraaya uniloo maa uniloo bin mu bi قل كل

you know me ilaahi wax na dëgg ñun yonent bi rek la ñu am gis nga bi muy wax naan ku nekk war nga yóbbaale dara ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma demee Màkka pour la première fois dama dem Màkka ñëw seeti Oustaz Ndaw mu ne ana Yonent bi ma ne ko andil naa la ko wallaahi te looloo am de du ah, mu ne ana Yonent bi bàyyi laay ana Yonent bi ma ne ko andil naa la ko pourquoi may wax Yonent bi ma nga fay ma bàyyi lu ma fa uti woon xanaa du moom may ñëw di ko fa bàyyi mu ne ma laa ilaha illa allah ma ne ko boo demee ci yonent bi da xam fi nga dem fan la da xam ki nga seeti kan la ngay xam li nga fay wuti lan la da xam nu mu toll dayo bi dayo bi nu mu toll nga xam nga dem nga ak sa aj nga ñibbisi waaye dem rek borom barrière or bi nga raay naa ko man dinaa tawaaf ba sama tawaaf jeex benn place rek laay laal mul xajarul aswad te Umar ibnul Xataab dafa waxoon xajarul aswad xool ko ba xool ko mu ne ko inni aalamu annaka xajar mu ne ko xam naa ne doo dara lu dul xeer walawla anni raaytu rasulallahi qabaltuka ma qabaltuka su fekkoonte ne gisuma woon gën ji mbindeef Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu fóon la kon man Omar ibn du ma la fóon ndax xeer nga waaye maa lay fóon teg sama fóon bi ci sunna roy sunna yoon ci Muhammad sallallahu xam na li muy def lan la kooku demul raay xeer ñibbi si waaye kooku wax mu raay naa kaaba nga waaye est-ce que indiwaale na kaaba Ndao daf ma ne neex na ma ne ko man de xam naa ne ba ma fa ba léegi du ma jiite julli te ma ak kaaba bi. allahu jiite mbooloo te jàkkaarloo ma gi soog dafa jafe nag. ci dégg laay waxee nag dafa jafe ci dégg. waaw jafewul ci am ku ko bëgg mën na ko am. waaye yàlla na ko bëgg. yàlla na ko bëgg. jalan kau pergi nesan ah mana yang sama konferensi saya itu nanti pas ke mari semua semua yang bidumu bidumu tangga di loh nak gos di semua juga kan loh di dapat sop boy bukan lagi no ah, my party nyolo wax la wax deug yalla waaw bi mu waxee ne dafa ne ma ne lay waxee mane paa Pathé jeex na bàyyi ko mu def Pathé ma ah ma ne ko jeex na bàyyi ko mu def léegi-léegi nga def conférence nga toog ñaari fan ñu tegal na ko nga déglu ko nga ne kii ndax man la ma dana ko da ngay wax doo ko bind doo ko xalaat doo ko préparé da ngay wax rek muy ñëw nga naan ndax kii man la boo demee bu ñu la ko tegalaatee nga ne ndax kii man la fekk ma dana ko wattaqullaha wa yuallimukumullah waaye yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla barkeel xam naa kuy waaxu ci yoon boo demee gisatoo kenn ci kanam soo gëstoo gisoo kenn ci ginnaaw war ngaa jaaxle waaye boo demee gis ñu waaxu di topp say tànk di ñëw nga sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin xanaa ñu jéem a boole ñaari jéem a boole madad jéem a boole taarix jéem a boole xar baax yu ci àll Muhammad sallallahu dafa am ay weer ci ginnaaw nu mu tudd di li ngeen di yónnee message yi whatsapp whatsapp maam Ousmane mii envoyé ci benn affaire ne ma lii de yéen imaam yi war ngeen ci waxtaan leeralal ko nit yi ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina nag ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn àdduna dañ ko empoisonné mu ne ma war waxtaan ci loolu bi ma ko liiree ma xam ne lii du waxtaan bu gàtt ma ne ko dafa mel ni trouvé nga temu gàmmu mu ne ma alhamdulilahi rabbil alamin Ousmane dige boobu rek moo ma tere ñëw ci sa gaal gi waaye dinañ boole ñaari incha rabbi danañ boole ñaari ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa yooyu wax ci moom yaa ngi wax ci moom ci sharia waaye yaa ngi wax ci moom ci xaqiqa allahuma salli ala sayidina muhammadin xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim kan moo ko xam ci yéen kan moo mas a dégg ko ko fii bala ne nii la danañ ko jéem rek waaye xaqa qadrihi mu ne yàlla wax ne wa maa qadarullaha xaqa qadrihi ñu ngi jaamu yàlla mais xamuñu dayoo yàlla lan la waaye ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xamuñu dayoo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fan la toll ak naka la yem mooy waral ngay wax allahumma salli boo ko xamoon da nga naan usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin boo ko xamoon doon ne allahumma salli waaw. waaw fa mel ni sa yaay ne kaay baleel ma kuur bi rek nga daal di jël bale ne ko yaay baleel baleel ma waaw ñaaw na ci déggin waaye dafa fekk booba ndigal li sañ loo ko bañ nga nangu ko waaye xam nga ne li nga nangu amuloo kàttan bi nga dem ca ka la defal nga ne yaay kaay wan ma nu ñuy bale waaw moom nga def parce que xamoo dayoo ka ngay julli xamoo nu mu toll sallallahu alayhi wa sallam rawatina nag ne yàlla daf la wax ne man lii ma lay sant man yàlla def naa ko ba noppi hmm. ma ne ku yàlla may ma noppi keneen ku la may doo ko yëg wala ah, waaw moo tax nag yow yàlla moom mu julli ci yonent yàlla la yow jullil ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa julli googa ngay jullil sa bopp du saf yàlla du saf yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax du toll ci dara moo tax ka ko xam moom kese nga delloo ko ko ne ko yow yaa ma ko sant mu ne waaw nga ne ko nangu naa li nga ma sant mu ne waaw waaye lott naa ci def li nga ma mu ne xam ko mu ne kon jooloo naa la ko nga defal ma mu ne ko ay ca moo tax saa julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay ya wax allahumma salli allahumma salli ya ngi jox yàlla ya ordre c'est impératif la yow yàlla jullil waaye nag ci ci waxin bu tegginu nga ne yàlla jullil ma ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ndax ak qadrihi ja parce que xamuloo ko xamuma ko samarom xam ko Ousmane wax na ko léegi nee na xam ni yàlla rek ko xam mooy xam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye doo tëb rek ne waaw yàllaa ko bind déedéet foofu nga jaar fi nit jaar ñëpp takk fi nit ñi takk ñëpp feebar fi nit ñi feebar ñëpp soog a wér nag soo gis ne dëgg rek kay dëgg nga xam ne mu ngi nii nga ñaan bi ñuy wax ci sharia allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna tibaat yàlla yàlla nag ñu wan dëgg muy dëgg te nga may ñu ñu topp ko firim zahir la firim zahir la lan mooy dëgg wala kan mooy dëgg allahu huwa alxaq jërëjëf allahu huwa alxaq wa anna ma tad'una min dunihi huwa albaatil yàlla rek kay dëgg leneen lu dul yàlla neen la leneen lu dul yàlla loola neen la kon yàlla rek mooy dëgg waa ana place yonent yàlla Muhammad kon ci foofu dir bu len yem ci sallallahu alaihi wasallam dama len poser question ana place yalla Muhammad ci buñu ne yalla rek mo am yalla ya rek mo yalla ana place Muhammad foofu Usman yow da nga sob xale bu soba ji la ilaha illallah dugal ci gaal goo xam ne ko ci bëgg a Muhammad ñu bëri dañuy bàyyi lay di waxati na nee na yoon Thiam Mouhamad existé wu. <laughs> ma waxoon ne existé wul nag lu ngeen may wax. adieu. <laughs> Thierno Bachir. waaw jërëjëf. yow de sa ñëw moom euh, c'est plus. parce que ku daan ñëw ba mu koy man di ñëw di toog ba bër set. mu toog jamono nga naan du ñëw ndax jéggal nañ ko ngàntam mu daal di bravé jafe-jafe yooyu ñëw malgré tout ba mu ñëwee la ma ne deux heures et demie laa bëgg a ñibbi ma ko may nañ la ko léegi deux heures et demie passé na kon jërëjëf Thierno Bachir yàlla yàlla defal la yow bu ñu fàtte ci ñaan incha allahu taala si la Maxtaar si la jërëjëf yal na yàlla defal la sa tur Bachir mooy kuy bégle yal na yàlla bégal ak ku taq ci yow. jërëjëf jërëjëf ah yow moom war a woon ñibbi léegi da nga waroon toog fii ah da ngay dem Tivaouane kuy dem de sañ ma tey ndax ñoom la ñu wuutu fii vraiment yaa ngi may dégg daanu nga xaadim dafa am koo xam ne su existé ba nga xam ne existé na nga wër ko mënoo koo gis da xam ne dellu la ca cosaanam Ousseyn Ndaw junj na ko léegi loolu wa wëlul wujuudi wu peut-être ak naqaree firi te Seydi Hadj Malick waxaat na foofu waaye duma wax li mu wax ndax da ngeen koy way فهو الذي الأنبياء من أول لآخر وهو صبي الأصفياء وسيد الأكابر إلا قد أكرم الله الورى الصبي الطاهرين والكون قد تنور إلى الجمال الباهي مصرنا قننا المنى المنى بالإله ساهر Você é